aousubillah min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irahim wasalatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallim mbokk yi seetaan Ndindy Actu ñu ngi leen di nuyuwaat encore une fois di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal di sakku ci yéen ñaan di dellu siwaat ci seen émission ganuk bés bi tey nag ganuk bés bi dafa dalal gan gu mag a mag macha allah koo xam ni ci waa kër Serigne Mouhamadul Fadal Mbacke la bokk mu di Serigne Jili Abdou Fatah Mbacke mi nga xam ni sëriñ Abdou Fatah mooy woy juram euh, mu di sëtub Serigne fàllu Mbacké tey moom la ñoo fekk si fii ci makkaanam euh, di ko nuyu si seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ndax dafa am bis boo xam ne daf koy waajal mu di bis bi mu tuddee fàttaliku maamam euh, Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké mu koy amal kon depuis seize ans fukki at ak juróom-benn ngi nii mu koy def euh, ren nag moo nekk seizième édition bi mu koy defee fële ca CICES incha allah le vingt cinq janvier vingt cinq janvier ñëw na ba noppi moo tax ñu ñëw seet si ko tey fas yéene waxtaan ak moom euh, ci wàllu bis bi organisation bi waajtaay ak la ca aju moo tax dama koy bàyyi rek mu ñu ziar ko Mbàkke mu nuyoon teg ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci Ndindy Actu salaamaaleykum. waaleykum salaam Seck maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem téléspectateur ak téléspectatrices yi nga xamante ne mooy Ndindy Actu di leen sant di bëgg lool ci teew gi nga xam ñëw ngeen fii fekk ma ko fii ci daara ji di la wax bisimilah dal leen ak jàmm. waa kay Mbàkke kon mi ngi noonu euh, ren nag euh, xam nañ ni bis bi moom njott nañ dina gën a yaatu incha allah euh, le vingt cinq janvier la. ren mooy seizième édition bi maanaam bi mooy fukkeelu yoon ak juróom-benn ngeen di ko def euh, lu jiitu woon doon na am ca parcelle ci angle ba ñu tuddee Cheikh Mouhamadul Fadal euh, ginnaaw bi 2011 ngeen indigo fii nga xam ni moo di sees alors euh, dañuy dellu ci historique bi. Uh, lan moo waraloon maanaam ngeen taxawal bis bi lan moo nekkoon sabab bi dëgg-dëgg waaw jërëjëf sekk kon danaa bëgg lool ci ñëw gi nga xamante ni ñëw na ñëw ngi fii laaj ma laaj boobu nga xamante ni bii baax na lool ñu leeral ko ba suñu mbokki bi yëpp xam ko ndax lu dañu war a fi dañu wax na lu lu lu am rek am na lu ko waral euh, l'historique de journées mooy mooy mooy bisu fàttaliku Cheikh Modou Fadal bi maa ngi ko njëkk a def 2005 euh, li ko jiitu woon nag xam nga. ndakaaru euh, daayira yi nga xamante ni bii taxawal naa leen fii ci ci ci gox yu bari ci Dakar dañ daan def euh, daayira bu nekk su at mi jotee mu am bisam ñu ñu dem fa ñoo ngi bi yëpp yàlla dogalee nag bi ñu demee bàgg 2004 ci fee ci Parcelles Assainies ñu gën ko xam ci angle Serigne Fallou bis bi nga xamante ni bii inauguré nañ ko mu nekkoon le 16 novembre 2004. muy bis boo xamante ne li tubaab di wax bis bu historique la boo xam ne njabootu sëriñ bi ñu bari bari teew nañ fa rawatina waa kër Cheikh Mamadou Fadal yàlla dogal bi ñu ko inauguré nag euh, ñuy def léegi bis bu jotati rek bu waxtu woowu bu jotee rek ñu daal di koy wootewaat mu dajale mboolem daayira yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci ndakaaru ak ci sous-région bi yëpp ñu ñëw ñu dajaw fa ñu tuddee ko nag surne fàttali ko suñ fal nga xam ne bi loolu jàllee ci lañ créé mboolem daayira yi nga xamante ni bii dañoo tasoon ci gox-goxaan yi ñu tudd ñu daal di leen tënk ci benn euh, kurel tuddee ko fédération saadixina wa saadixaat saadixina wa saadixaat tur alxuraanul karim la suñu borom bi ci alxuraan bi muy lim inal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati wal saadixina wal saadixaati wal saabirina wal saabiraati wal xaasina wal xaasiaati wal mutasaddiqina boobu lañ jël tuddee ko maanaam ñi nga xamante bi ñooy way dëggal yu góor yi ak woy dëggal yu yu yu yu jigéen yi ci loolu nag laa ne laa leen wax ne dès maintenant daayira yi nga xamante ne bi ñoo doon def gox bu ne daayira bu nekk di am bisam at mu jot léegi daayira yëpp na ngeen bàyyi bis yooyu yëpp ñu di ko def benn bis tënk ko ci benn ci genn kàddu muy tuddee ko journée fàttaliku Cheikh Mamadou Fadal daal di koy tàmbali def euh, deux mille 2005 depuis loolu nag ñu koy def at mu jot ñu koy def at mu jot ñu koy def at mu jot ba yàlla dogal 2011 ñu daal di koy yóbbu foire internationale de Dakar bañ koo yóbbu foire internationale journée ba nga xamante ni bii njëkk 2011 2010 xam nga ku ne xam ne ne El Hadj Mouhamed Lamine Bara Mbacké Falilou yàlla na yàlla yokk ay leeram tànn ci barkeem ci la nelaw nag at ma ci njëkk moom lañ ko tuddee tuddee ko ko moom lañ daanaka journée boobu bis boobu lañ njëkk tuddee eh, kilifa journée bi muy muy muy muy Cheikh Mouhamed Lamine Bara Mbacké Falilou 2011 nag biñ ko yóbboo CICES muy biñ fa njëkk a def muy 2000 ci lañ ko tuddee Cheikh Mamadou Moustapha muy Cheikh Mamadou Moussa Fall yàlla na yaay yokk leen taxañ ci barkeem ginnaaw bi eh, biñ biñ ca tegee defe naa lu man ñetti at jàpp ñeent ci lañ ko tuddee ci lañ ko tuddee soxna maam jaare Tulaay Mariam Bousso jur Cheikhul Xadim eh, biñ ci jógee ñu tegaat ca ñaari at ñu tuddee ko Cheikh muy daaw jeg ñu tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina incha allahu rabbil alamina ren ji ñu war ñu war koo tuddee nag Cheikh Aliou Diouf lambaay Cheikh Aliou Diouf Lambaye nekkoon koo xam ne bokkoon na ci mag ñi àndoon nag sëriñ bi di ki nga xamante ni bii moo moo moo féetee woon ca tundu lambaay woowu te am ay ay ay jaar-jaar yu am solo yoo xam ne amoon na ko digganteem ak sëriñ bi ak ak ku ne xam ne ne ku jàngi lu gàtt dégg nga jësaaw sakkoor bi Cheikh Moussa Kadi wax Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane sëriñ Momar Mané sëriñ Aliou Diouf làmbaay ñi la ko daane parce que booba tubaab bi da waxoon dañoo dañoo dañoo yëgoon ne dañuy dañuy dañoo yëgoon ne ñoom ñi ngi dem Touba di di di di influence yenn taal bi dina yóbbu sëñ Touba bi ko booleeg teñ tanoor nag dañ Tanor nag daal di woote ca tundu làmbaay menacé leen ne leen nag képp ku ma déggati dangeen ngeen bàyyi sëñ Touba histoire bu la da ngeen bàyyi sëñ Touba wala wala ku ko ci wu rek danaa la rendi ci xabal leen loolu moo waraloon histoire bi léegi nag jàmbaar jooyu jàmbaar yooyu kenn ci ñoom muy Cheikh Aliou Diouf Lambaye bu soobee yàlla Seck moom la ñuy tuddee Sourd Cheikh Modou Fadel Mbacké di 16e édition bi Cheikh Aliou euh, Cheikh Aliou Diouf Lambaye moom la ñu jagleel kon édition ren bi incha allah mu nar a am kon le vingt cinq janvier foofu nga xam ni moo di si ses incha allah ñu koy ànd ak euh, euh, sang bu tedd bi di Serigne ab Abdou Fatah Mbacke Mbacke Balla ku nekk nag xam na ni Cheikh Mouhamadul Fadal moom ay mbiram daal dafa yéeme. ba tax na sax nit ñi dañuy faral di wax ni muy kàddugu gu siiw ku ne am nga sëriñ waaye ku jàq sëñ fàllu ngay ngay ngay alors euh, fàttaliku Serigne Fallou Mbacké lan mooy inspiration bi lu lu lu c'est-à-dire euh, Cheikh Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké euh, laa bëgg nga nga ñëwal ma ci moom tuuti rek Cheikh faadal euh, ndax yow ab sëtam nga wax dëgg te te nee nañu sët mooy mooy mooy mooy maam ah donc bëgg nañu wax dëgg yàlla am nañu lu bari loo xam ne njortu naa ni yëg nga ko ci moom ba tax nga jagleel ko bis bi. waaw xam nga sunu Boroom dafa wax ci alquranul karim wa zakir fa inna zikra xam nga boo dégg ñu naan fàttaliku toujours ci wolof ku dégg wolof ci déggin mu gàtt da ngay jàpp ne lu ñu fàtte la nga di ko fàttaliku déedéet Cheikh Amadou Fall kenn du ko fàttaliku suñu borom bi moo wax moo wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquranul karim ne ko del fàttali ndax del fàttali ndax fàttali dana dana dana jëriñ koo xam ku gëm léegi nag Serigne Fallou yàlla dafa def lu tubaab jox phénomène la mooy nit da koy bëgg te mu boo nekkoon li tax nga bëgg Serigne Fallou du la wax li tax mu bëgg ko parce que mosu koo xam daa dégg rek bëgg loolu nag euh, ak ak jagleelu sunu borom bi la waaye nag loolu yëpp it man de jaaxalu ma ndax Cheikh Modou Fadal euh, dafa waxoon naan dafa waxoon ne euh, jaamu yàlla ci jaami yàlla yi léegi nag loolu daf ko doon daf ko doon dund te di ko doxal Cheikh Modou Fadal nekkoon koo xam ne daanaka ma ne wax naan ndey ju la woon dafa nekkoon koo xam ne dafa ëmb ñëpp maanaam Serigne Fallou kenn mosu woon a jóg ñëw ci moom jaxle wala njàqare te boo ñëwee ci moom njàqare ju du fayam. daf daa mu yemale woon ñëpp nag uuf ñëpp waxoon ne man doomu adama maa ngi maa ngi maa ngi koy jàpp ci ak di ko xool ci wala xadd karam naa bani aadama jooju nga xam suñu borom bi moo ko wax ci alxuraanul karim léegi nag loolu taxoon mu meloon noonu ci doomu aadama yi bëgg leen lool fonk leen lool suñ falu képp ku ñëwoon ci moom rek yëg nga sa bopp ci moom ku mos a ñëw ak koo mën a doon ak foo mën a bokk dafa amoon ay dafa amoon ay jikko yoo xam ne neewaana sax ci nitu yàlla yi jikko yooyu ku koy jikkoo mooy maa xam ay naxam ba ba pare di ca di ca tàbbi suñ fàllu nit dara ñëw ci moom nax ku mu leen woon a nax yi mu koy nax xam na ko waaye mu mu nangu nax rawatina ñu ko daan nax ci sëriñ Touba te ku ko masaa nax ci sëñ ku ba masaa bëgg ci moom dara rek da ñëw nax ko ci sëñ Touba dana xam ne nax ya moom da nga koy waaye sëñ Touba jaral na ko léegi nag yooyu yëpp mu daan mu daan ji ci doomu aadama yi tey jii loolu la ko yàlla fayee xolu doomu aadama yi ndax sëñ Fall booy xool ci Sénégal bu ñu doon def sondage danga naan kin gën a bëgg ci Sénégal booy xool sëñ Fall boo le trois première bi ci du ko génn loolu nag waaw bu nekkul première bi léegi nag loolu nag lu li lu mu liggéeyoon la lu mu la ci ci ci liggéeyaloon liggéeyaloon ko yàlla ci doomu adama yi waaye liggéeyaloon ko sëriñam ba di sëriñ ci doomu aadama yi loo liggéeyal ko liggéeyal ko it ci yoonu murit bi moo waral tey jii loolu tey ji résultat bi mel nii tey sëñ Fallu koo gis rek daan dama bëgg sëñ Fallu mag moo dajeel ci mu fekkoon jamono mootu dana maag sëñ Fallou jaar nañ fi sëñ falu taxaw na ma fii defal na ma lii loolu nag may may suñu borom suñu borom dafa wax ne wa ina min sayni ilaa xindanaa xasaa ino maa nun la soo ilaa bi xadri ne wa anal fad salik fadullah yuuti man yasa wala su fad waxal wa anal fad bi yadillah yuuti man yasa wala su fad maanaam donc turam boobu nga xamante ni al fadilu wane na maanaam sëñ Fallou ay qualité am wane na ay ay jikkoom loolu moo waral nag tey ji ñuy ñu xam loola ñu xam loola tax ñu ne kat rawatina it ñu am yëg-yëg boobu ci ñun ndax danaa naa leen man Sëñ Fallu moom foo ma a bokk jàpp naa ne ak foo ma mënoon juddoo it mbëggeel gi ma ko mbëggeel nii yaakaar naa danaa ko bëgg kon nag alhamdulilah bi ñu yàlla boole ñu bokk ci moom loolu waral ñu xam ne bëgg Sëñ Fallu ay ngëneeli kese la ndax Sëñ Tuubaa waxoon ne ne njëriñ saanafan bi laa dara ren njëriñ la loolu it gëm nañ ne Sëñ Fallu loolu mi ngi ci moom loolu moo waral nag ñu xam ne ku bëgg Sëñ falu yi day baax nga jéem ci xam ci moom dara ndax Sëñ Fallu xam naa ne kenn mënu ko xam ku dul sunu borom bi ko bind xanaa ak sëriñ bi Xaadimu Mustafa waaye nag ñu nga jëm cee xam ci moom dara ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne almaru maha man a ahaba ëllëg fekk daam ku ñëw laaj ko ko yooyu yonente bi kañ la saa di taxaw yonente bi ne ko looy yàkkamti di ma ko laaj ma ne ko xanaa bëgg ma la bëgg rek a tax si yonente bi ko yonente bi ne ko dëgg ëllëg day ku nekk ka nga bëgg eh, yéenay bokk fu ngeen nekk waaye nag eh, li tubaab di wax dafa am dafa am ràññeek bu ci am mooy nit ki bu fekkee da nga bëgg da ngay fexe la mu bëgg nga bëgg ko dangay damu da ngay fexe la mu bañ nga bañ ko da ngay fexeet fa mu tegoon tànkam nga jëm faa teg sa tànk ndax it eh, bañ a bañ bokk ci riirandoo yi ndax li ñu naan ma riirandoo yi dafa bari léegi ci yoon wi damaa bëgg sëñ Fall ba pare lu la neex def damaa bëgg sëñ Fall ba pare lu wax damaa bëgg sëñ Fall ba pare lu la neex fu la neex dem damaa bëgg sëñ Fall ba pare lu la neex sol yaa ñi nax sa bopp ku bëgg sëñ Fallu dangay dangay koy gëstu xam sëñ Fallu mooy kan sëñ Fallu nan la daan doxe sëñ Fallu nan la daan jëfe suñu si nan la nan la nan la daan jëflante ak doomu aadama yi ak ak nan naka la daan taxawee ci digganteem ak boromam ak naka la daan taxawee ci digganteem ak Serigne nga xam ne moo doon sëriñ la daan doxee ak digganteem ak doomi sëriñ ñi mu leen daan waxe muy ay rakkam yooyu nga ne da daa wax naan yaay sama samay doomi sëriñ nga di ci jàng gisoo jàngi Serigne Fallou naka la jikkoo woon ci digganteem ak doomu aadama yi naka la jikko woon ci ñi nga xamante ni noonu la yàlla defoon ci jikko yi rafet yooyu muy nekkoon ko xam ne ku mënoon a muñ la nekkoon ko xam ne ku yaatu la nekkoon ko xam ne ku laabi la nekkoon ko xam ne ku mënoon a jaamu la nekkoon ko xam ne ku ku nangoon liggéey la nekkoon ko xam ne ku nangoon a joxe waaw yooyu yëpp nag yow mi nga xamante ni bi yaay ab soppeem euh, da ngay fexe euh, xam loolu ndax bu ci nekk ndax suñu fàll dama ne jikko yi nga xam ne suñu boobu jikko loolu benn jikko rek koo roy jàpp naa ne mën nga cee jëriñu àdduna mën nga cee jëriñu àllaax rawatina jikkoom yooyu yëpp léegi nag suñu mees ñun bi ñu xamee ne soppee suñ suñ fàllu soppeem yi bari na ñu ne nag ñun nañuy def ay journée yoo xam ne dañu fay dajale ay boromi xam-xam woote na ñëw leen journée soppeeb Sëñ Fallu ndax journée soppeeb Sëñ Fallu boo ko woo soppeeb Sëñ Fallu boo ko wootee rek jàpp naa ne ku bëgg Sëñ Fallu nga a toog xam ne ñi ñëpp ay soppee Sëñ Fallu lan nga leen wax ne neen ku bëgg Sëñ Fallu nag nii nga war a doxee ndax Sëñ Fallu mi ngeen bëgg kat nii la doon doxee Sëñ Fallu kat mi ngeen bëgg nii la doon jëfee Sëñ Fallu mi ngeen doon doxee kat nii la doon jëflanteeg ñëpp bu ko defee loolu dana tax euh, nga dégg ca loo xamante ni bii bu fekkoon tamit xamoo ko woon danga nga ko ci jéem a xam euh, boo fa jógee jël jël ci jariñu ndax Sëñ Tuubaa dafa wax ci naxjul xaleel aj ne bul bul toog bul toogaaleeg mukk wala bul toogaaleeg mukk loo xam ne doo si jëlee benn njariñ bul dem fenn foo xamante ni doo fa jëlee xel doo fa jëlee ak jaamu ak ragal yàlla léegi nag ñuy bëgg ñun suñu bis képp koo xam ne ñëw nga fa nga jëlee fa loo xamante ni bii dana la jariñ àdduna daan la jëriñ àllaaxira loolu daal sekk mooy sunu sunu wàll ci su mooy sunu mission ci journée Sëñ Fall mooy sunu mission ci ci soppee Cheikh Ahmadou Fadal yi jërëjëf Mbacke kon gis ngeen euh, sëriñ bi développé nañu ci loo xam ne da koo tënk rek ci ki nga xam ne moo di maamam euh, Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke euh, yéen bi salaa salaam am na benn xadis bu muy wax ci li fi nga daanelee rek laay confirmer ni min xusni islamil mar'i tarkuhu ma la yaani ah te sa maam ja waxoon na Serigne Touba jaayante moom ni ko bi'tu bu nuwati bil irada li kay ahza lakum bi xarqi aada min baadi mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xayri manni ndeysaan jox naa la ko addiye te laajuma ci ak pay laajuma la ci dara Ah, kon am na solo macha allah Cheikh euh, Jili Abdoul Fattah moom la ñuy euh, moom la ñuy dalal tey ci émission bi nga xam ni moo di ganuk bis bi tey Cheikh Jili Abdoul Fattah Mbacké Cheikh Abdoul Fattah sa waajur moom day euh, xam naa ni Sénégal ràññee na ko ndax moo defe naa yor kàdduk waa kër Cheikh Mouhamadul Fadal boo ñu doon jàngatal ay ay ay melokaanam ci tënk rek Mbàkke lu muy doon laaj nga ma lu ma sawar ndax Cheikh Abdoul Fatah man jàppewu ma ko waajur ab sëriñ laa ko jàppe sëriñ laa ko jàpp fa si doon ab taalibeem ah sëriñ Abdoul damay wax naa ne boo doon wër murid saadix ci njabootu sëriñ Touba yaakaar naa ci ci trois premiers lay bokk muy koo xam ne amul sëriñ amul sago ci sëriñ Touba muy koo xamante ni bii défenseur yoonu murid la muy koo xamante ni bii nag. moom sëñ Fallou moom ni ci mel moom jàpp naa ne ci kaw suuf kenn melu ko ci muy koo xam ne biit euh, ñun ñun bu ñu bëggee sëñ Fallou moo ñu ci nampatal man maa ngi fàttaliku ba may xale bu ma masa tudd waat ci dafa daan wax naan ma tudd waatal ci sëñ rek te loolu booba booba demu ko sax daara waaye du gone du fàtte nga xam lam loolu la ma nàmpatale ba nga xam ne man pour man sëñ Fallou rek benn sëriñ moom muy sëñ falu sëñ Abdou Fatah nag muy koo xam ne maanaam euh, doxinu euh, murit saadix lay doxe sëriñ bi euh, nit la koo xamante ni biit ay jikkoom boo ko doon teg maanaam mën ngay wax fii ba ngo ba suba te doo jeexal muy koo xam ne li gën a jafe ci kilifa moom la am mooy woyof tooy li gën a jafe ci kilifa moom moom noonu la ko yàlla defalit mooy tabe muy koo xamante ni bii sëriñ bi damay wax ne sëriñ Fata boo boo diisee sax du ngeen a def. Euh, sekk dana jafe loolu moo wax ci ndax man dama dama ko bëgg naturellement waaw dama ko bëgg ndax euh, ab taxawaayam dama ko bëgg ngir ay jikkoom dama ko bëgg ngir yërmaane ji nga xam ne da ko ëmbal doomu adama yi waaye rawatina nag ci taalibe yi kon muy koo xam ne daal li ñu wax naan mënu ma ko ndax kenn du toog di tagg sa waajur dana jafe ñu wax see c'est mal placé wax ci daal waaye xam naa ne daal. Euh, kilifa la goo xam ne li ñuy war a def mooy di ko ñaanal mu yàgg fi ndax sag la ci ci ci yoon murit te Serigne Touba gëm naa ne xam naa ci mu bëgg Serigne Touba bëgg Serigne Touba goo xam ne mu yoon murit doon laaj bakkan ba jàpp naa ci ñiy njëkk a joxe bakkanam ci lay bokk kon nag foofu rek laa yem sëñ bi ok jërëjëf jërëjëf loolu la euh, loolu xam nga yéen moom comme li ñu junj sànq rek ci sëñ Fallou euh, maanaam yéen seen wayjur yi jàppee leen leen ay wayjur waaye ay sëriñ leen jàppee waaw loolu nag ca jamonoy Cheikh Mouhamadul Moustapha ba jaar ci sëñ Fallou ba ñu see ci Cheikh euh, Mouhamadul Mountakha Bachir mi nga xam ni moo fi xalif général des Mourides moom nag bëgg naa sax nga ñëwal ma ci moom tuuti rek. laata ñuy laata ñuy dellusiwaat nag ci vingt cinq janvier bi ndax loolu sax moo waral tey jataay bi waaye nag bu ñu toogee kilifa gu mel ni yow dañuy bëgg tuuti di am ay aperçu ci yenn euh, mbir yoo xam ne yoonu murit da koy doxee récemment ñëw na fi Dakar def fi defe naa ni semaine mbaa ko jege di inauguré si Massalikul Jinaan mu di édifice boo xam ne daanaka monsieur su ko gis fii ci dendu Afrique. ginnaaw jamaay Touba ji nga xam ni moo nekk ca euh, euh, Touba Mbacké Cheikh Mountakha Bachir. leel Mountakha wajjaxtu fi ndakaaru sikkaran bi xat kub kibel makaaru Serigne Mountakha euh, man damay wax ne man sëñ Fallou rek laa koy xoole ndax xaw ma sëñ Fallou da waaye li ma dégg ci moom lu ci bari maa ngi koy gis ci jëmmam te naa la wax nag benn exclusivité boo xam ne est-ce xam ne monsieur Abdou Fatah li mu bokk ak sëñ Mountakha jigéen ki ko jur Serigne Abdou Fatah. waa jur wu jigéen ki ko jur ñoo bokk benn baay ñoom ñaar noonu lañu bokke bokkee sëñ Mountakha euh, ni ma ko waxee léegi rek maanaam doxinu sëñ Fallou rek wi nga xam ne moom laa dégg moom laay gis ci moom muy koo xam ne euh, dafa woyof tooy di koo xamante ni bi ak taalibe bi rek lay dund ak taalibe bi rek moo ko ñor lii nga xamante ni bi doon gi nga xam ne doon na doon na ko Serigne Touba daf ko daf ko mérito ah ku ne xam na ne def ko liggéey ku ne xam na ne Cheikh Salih yàlla na yàlla yokki leem tax ci barkeem bi mu fi jógee Cheikh Mouhamadul ni mu takkoo ni mu taxawoo tofu ci rakkam di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké takk ndiggam doon doon ab taalibeem xoolu ko ne ko sama mag nga waaye du ko xool na ko yaay sëñ Tuubaa ci man xool na ko yaay sama sëñ xool na ko waajur nga ci man takku takku ànd ak sët sëñ yëpp ñu ànd ak moom mu jàppale ko ci liggéey sëriñ Tuubaa bii ba Cheikh Modou Lamine Bara Mbacké jóge fi Cheikh Modou Cheikh Sidil Mokhtar ñëw mu def nu raw nam defoon Cheikh Modou Lamine Bara Falilu ba tey jii tey jii jal bi agsi ci moom muy koo xamante ni bii reyukaay la coon mi koo xam ne biit euh, li ñu war a def daal képp kuy ab jur li nga war a def mooy nañ ko ñaanal mu yàgg fi ndax euh, mbégte la mbégte la moo xamante ni bii euh, noonu nga xam ne waajuram mu ñu tudd ko Cheikh Mouhamadul Basir mooy Mouhamadul Basir Mouhamadou Mbégte mi borom Mbégte loolu moom gis nañ ko ci ci jëmmam sëriñ Mountakha it li ma wax ne dafa jikko jikkoy si Amadou Fall mooy képp koo xam ne ñëw nga ci moom rek am nga ci moom wàccuwaay amul xaj amul seen koo mën a doon loo mage mage mage ak loo tuuti tuuti boo ñëwee dana la jox sa cër yëkkati la ba nga jàpp ne yow dara nga doonte doo doo doo dara te loolu nag ñun dañ koo namoon ci yoonu murit waaw dañ koo namoon ci yoon wi te loolu nag moom la def moo tax ku ci nekk rek bi mu set sawar ngaa dem fa seeti ko sawar ngaa dem nuy ji ko sawar ngaa dem siyaari ji ko ndax boo demee da nga fa yëg sa bopp boo demee danga fa yëg Serigne Touba jataayam kon nag euh, li ñuy def mooy ñaanal ko sunu borom bi bàyyi ko fi ba liggéey yi mu nar sunu borom bi mott mottali ko ba ba ba àggale ko ba mébal yeneen i mébét ba àggale ko ndax kat la may wax naan tiitar la ci yoonu murit tiitar la ci jullit yi waaye tiitar lay ci Sénégal muy koo xamante ni bii gis nga ko jumaay masaalikul jinaan ji ci ci ay la àgge ci gis nga ci taxawaay bi mu ci taxaw bi nga xam doon na sëñ Tuubaa ni mu ci taxawee ba tey ba tey mu àgg ba tey muy ab sag boo xamante bi mu jëf fa jëf yu bari yoo xamante ne bi jëf yëpp képp koo xamante ne bi ab sénégalais nga bég bég nga ci ab képp koo xam ne ab sénégalais nga tiitaru nga ci ci jëf yu bari yoo xam ne mënu su ko lim kon nag li ñu def euh, sekk mooy di ko ñaanal daal suñu boom bi bàyyi ko fi lool mu yàgg fi am at yoo xamante ni bi daal dana bari ba jaaxal ñëpp te suñu borom boole ko mu ànd ko wér ndax xam nañ ne bu bu fi yàggee de waxuma la yoonu murit waaye njariñ la ci Sénégal te bu fi yàggee Sénégal yëpp danañ yëg ne danañ yëg njariñam ci yàgg gi mu fi yàgg kon nag yàlla na ko fi sunu borom bi bàyyi ci daajay xaari ba mu so barkeeb waajuram mu tedd Cheikh Amadou Basir jërëjëf Mbacke euh, jërëjëf Mbacke Cheikh euh, <laughs> Jili Abdoul Fatah euh, yàlla na fi suñu borom yàggal wéral cëri bu baax a baax a baax ah, ganok bis bi ganok bis bi tey ah, tey nag dañoo gane si ñun ah mooy mooy mooy mooy suñu gan nun mooy ganuk Ndindy Actu waaye ñun nooy ay ganam tey ah, mu teeruñu bu baax teral ñu Mbacke Balla jërëjëf alors dañuy dellu si ci vingt cinq janvier incha allah moo di bisub fàttaliku Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke si ses lay doon incha allah organisation bi nu mu demee waaw c'est xam nga journée bi moom wax naa leen comme ni nga ko tuddee rek ñun lépp lu ñuy def ci ñu ngi koy def ci ndigalal Cheikh Abdoul Fattah lépp lu ñuy def it ñu ngi dakk bëgg-bëggam ci ne lii buñ ko defee dana ko neex looloo waral lu ci tàmbali tàmbali ba ba ci fin ba dara du ko ci ump ki nekk rek dañuy xool la nga xam noonu la ko ca bëgge rek ñu defee ko ci noonu euh, programme bi it euh, nii la dañuy def bu yàlla dogalee bu ñu xëyee suba. à partir de huit rek dañuy tàmbali wàcc kaamil ak jàngi ay xasida def ay salaatu ala nabi maanaam en attendant ñu xaar dëkk ndax bis bi xam ngeen ne dëkk yi sous région yi dëkk yu bari dañuy dañuy ñëw ndax xam nga fédération saari xirba saari xaadi am na ci dëkk yi dëkk parce que ci région yi am na ay Kaolack am na am na dëkk yëpp na fi Bambey mm, fépp donc heure yooyu nag lañ leen xaar ñëw ba midi ba midi jotee nag man fii laay jógee fii ci kër gi almadi dem dem dem ci saal bu ma fa demee nag ci laay accueillir daay li taalib yi yeeg éviter yooyu bu noppee ñu def berne yi buñ ci jógee nag à 16h dañuy def cérémonie officielle bi cérémonie officielle bi buñ ko defee nag bu soobee yàlla bam bam ba à partir de 19h 19h30 bu soobee yàlla fa lañ fa lañ koy fa lañ koy jeexal ma profité ci occasion bi di laa si appel ci mbooleem ñi nga xamante ni bi ñoo ngi fay ñi ngi sàkku daal lii nga xam ne euh, sunu boom bi moo ko njëkk a tereel ñëpp Serigne Touba ñëw feddli ko Cheikh Cheikh waa Serigne Touba yëpp jaar ba Cheikh Abdoul Ahad ak muy li nga xam ne moom la ñu bañ ca Touba wax dëgg li nga xam ne moom la ñu bëgg ci Touba ñaar yooyu daal bëgg nañ képp kuy ñëw nga bàyyil xel lool xam ne daal jàpp nañ ne suñu saal bi suñu bis bee euh, dañoo bëgg daal euh, mooy muy mu mel ne jataay bi ci Touba lañ koy defee muy lépp loo xam ne ñu ngi koy bëgg ca dëkk bu tedd bi daal bëgg nañ ku ñëw ku ñëw nekk lépp loo xam ne ñu ngi koy bañ ca tub dëkk bale euh, ñi ngi ñëw ku ñëw rek bàyyi ko rawatina rek suñu mbokk jigéen ñuy ñuy profité ci occasion di leen wax daal li ñuy wax muuraay gi daal nañu ci dimbali bu baax te jàppale ñu te ba ku fay ñëw daal na fexee sol lu yiw muur ba nga xam ne dana mel ni nga xamante ni bi ab julit bu nga xamante ni bii ma ngay dox doxeen wu rafet dana doxee noonu loolu daal ñu ngi koy ñu ngi koy profité ci occasion bi di ko lancer appel ci mboolem koo xamante ni bii ma ngay ñëw foofu ci bis dëgg la janvier kon fële lay doon si s incha allah euh, ñu ci ànd ak Serigne Djili Abdou Fatah mu di bisu fàttaliku euh, Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke alors euh, li mu junj léegi am na solo mën nañ cee taxaw tuuti la ñuy bañ ca Touba lañ fay bañ maanaam greffage dañ ko fay tere. ah jaxasoo góor ak jigéen dañ ko fay tere maanaam lépp loo xam ne daal maanaam ay xeet yu yoo xam ne la du màndargam jullit maanaam sëñ bi daal bu doon sagoom ku ñëw nga tënk ci loolu bu ko defee bis bi mën a wuyu euh, aw turam mm, incha allah ndaxte xam nañ ni que euh, Touba moom kuy wër lislaam ba yegg fa defe naa ni di nga teeral ndax foofa amul baar amul hôtel amul dara lu tege kenn du fa toog cigarette kenn du fa naan sàngara lépp loo xam ne daal euh, yàlla suñu borom bugg ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam koy tere Cheikhul Khadim moom it ci loolu rek la nekk yéen it Mbàkke ci loolu rek ngeen di dox alors vingt cinq janvier euh, deux mille vingt day fekk ñu dugg nag ci at mu bees dañu dugg Mbàkke ci at mu bees mi rek daal mm, di ànd ak sëñ Fallou dugg ci incha allah atum deux mille vingt mi ngi ñëw deux mille dix neuf jeex na njortu naa ni am na ay xëy na ay tukki yoo fi jot a def wala ay yëngu-yëngu ay rencontre yoo xam ne jot nga ko fi def ci wàllu bis boobu nga xam ne moom ngay organiser alors euh, nan la waajtaay wi demee woon la ngeen njëkkoon a def ci at yu njëkk ya ren lan moo ci soppeeku. waaw xam nga li tubaab di wax ne innovation moom at mu jot dañuy fexe euh, bu bis mu jàllee dañuy toog jàmbar xool lan moo dox te baax ñu ne lii nañ ko yokk lan lañ fa def te doxut ñu fexe ne lii li tax doxut. lan la nga xamante ni doxal nañ ko te warutoon dox ñu fexe ñu dakkal ko donc ci yooyu yëpp xam nga danaa ci leeral xam nga boo xoolee daaw journée bi biñ ko jàppee le le 6 octobre defe naa ne la la la 4 ci la soxna maam Bousso Mbacke nelaw moom Cheikh Abdou Fatah yàlla na ko suñu borom bi jégal te yërëm ko euh, la la 5 ba ci laa def annonce ci ne nañ nañ nañ nañ nañ nañ nañ nañ annulé journée bi ngir loolu mu tombé woon moo waraloon ren de ren nag bi ko waree def ci ci ci fekk mu tombeek Masaalikul Jinaan bi parce que ñu bari sax doon nañ laaj bis bi lan moo tax waxtuñ ko daan def defuñu ko léegi nag daf ren dafa parce que le 27 defe naa lañ ko inauguré te date boobu lañ ko waroon a jàpp moo taxoon ñu rapporté ko ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci incha allah date bii donc c'est que bis journée daal dañuy def at mu jot rek ñu xool la kon ni ma ko waxee ne noonu noonu noonu lañ koy doxe donc tàmbali nañ nag depuis deux mois ñu ngi ciy ñu ngi ciy rencontré ak ay rencontré ak ay kilifa ñu ngi ciy rencontré ak kii rek xool noo xamante ne bis parce que bis bi léegi dafa nekk bis boo xam bis parce que mën am murid ci xam nga bis yëpp euh, xam nañ murid yi fi ne yëpp ci ndakaaru xam nañ àngal Sëñ Fallu àngal Fallu bu ci toppit xam nañ sut na fàttaliku Sëñ Fallu donc moo tax euh, nekk na bis boo xamante bi daal jàpp naa ne euh, mbokki ju mbokki waaw mbokki taal bi yëpp mbokki jullit mbokki taal bi ñu ngi koy waaye rawatina taal bi nga ñoo nekk ndakaaru